ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل والي وجعل علي خير الصلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi arrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wazid baraa'i asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyób lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ndokkeel bu baax a baax ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy ànd ak sunu gan gu tedd gi nga xam ne moom lañuy jiital ci nuyoo bi muy sëriñ Mamor Mourtada ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ñaan sunu boroom dëgëral ko may ko kàttan ba lim yéene mu àggale ko ci barki sëriñ Touba noonu itam la nuyoo mboolem njabootug Cheikhul Xadim gi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bii tàmbale ko ci sëriñ maam cheikh moom cheikh Mouhamadul Mourtada ak sëriñ Fàllu Mbàkke ak sëriñ Baqir Buso ak mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañu fi di sant bu baax a baax tam di nuyu bokk yi nga xam ne ñoom la ñu séqal jotaay bi ñuy ay boroomi xam-xam yaroo ci keppaaruk sëriñ bi nga xam ne saa bu sëriñ bi tàbbee ci réew mi daañu ànd ak moom ci liggéey bi fu ñu dem di fa jottale message su sëriñ bi te message su sëriñ bi weesuwul message su lislaam ñu ngi ciy nuyu di ci ndokkeel bu baax a baax sunu wëllëre wi ñu toogal muy al oustaz Mouhamed Abdoulahi Ndong ak sunu mbokk mi nga xam ne itam moom moo feggoog ñun sëriñ fàllu jén di ziyaare bu baax a baax sëriñ Fallou Dia ak mboolem bokk yi nga xam ne rek ñoom ñoo saytu li nga xam ne moo aju ci wàllu commission culturelle bu waa Touba Treviso xam naa nag fàttalante bi kon dañoo wax ni rekk dañu koy def ci ñaari tomb tomb bu jëkk bi mooy wàllu bennoo tomb ñaareel bi mooy wàllu solidarité bennoo nag nekk loo xam ne dana doy rekk ñu ne borom bi subhanahu wa taala moom moo ko digle muy borom bi moo wax ni waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen ngoy ci buum gi nga xam ne mooy buumu borom bi subhanahu wa taala te buleen leen ko foofu nag lu mat jàngat la ndax arab yi dañuy wax al ixtilaaf ak al iftiraaq muy ñaar yoo xam ne bokkul al ixtilaaf muy wuute ay gis-gis loolu moom diine la waaye amal iftiraaq muy teqali ko loolu moom du diine kon mën nañoo wuute ay gis-gis ñii gisee ne ñeneen gisee neneen loolu diine la muy ixtilaaf ndax xam ngeen ni ixtilaaful ulamaa i rahma wuute yi nga xam ne sax boroom xam-xam yi dañ ko wuute ñenn ñi wax nañu ne yërmande la kon wuute ci boppam diine la waaye teqalikoo nag moom moom moo dul diine kon nag muy ndigal loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko digal jullit ñépp kon lu ama am solo la te xam ngeen ni Cheikh Mouhamadul Mourtada ñun ñépp miinoon nañ ci làmmiñam wu tedd woowu muy baamu aayab alquran boobu sunu borom di wax muy aaya bi ma jàngoon léegi muy waxtasimu bi xablillaahi jamian wala tafarraqu muy loo xam ne ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel te sëriñ Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu dafa daan wax ni lu leen di bennale ci laay nekk fii ak bennoo wu leen lu leen bennale ci laay nekk ba keroog ngeen di bennoo kon loolu ñu mën a jàngat ci ne li ñu bëgg lépp li ñu ko mën a may mooy bennoo waaye tam fi ñu bëgg àgg li ñu fa mën a àggale mooy bennoo kon bennoo lu ama am solo la moo tax gis ngeen sëriñ Murtada radiyallahu anhu bi mu duggee ci réew mi turu mbooloo yi nga xam ne noonu la ko tudde rek junj boo xam ne dafay wane ni booloo ci boppam moom lañu ñu war a def muy turu mbooloo yi ni mu ko tuddee muy jam'iyatu taawun ala taatillaahi wa rasulihi nga xam ne noonu mu tuddee tur yi mooy tomb waxtaan wi muy ñaari tomb yooyu waxoon muy bennoo ak wàllu dimbalante muy wàllu solidarité kon bennoo boobu nag ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel rawatina ñi nga xam ne ay njiiti daayira lañ moo xam daayira Cheikhul Khadim lañ moo xam ay daayira Soxna Jaara lañ ñoom ñëpp war nañ cee bàyyi xel xam ne loolu ndigal la loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko digle responsabilité partagée la mooy kenn ku nekk am nga ci responsabilité kon kenn ku nekk na xool li nga xam ne moom moo ci wàllam mu góor góorgóorlu ci jàpp ko xam ne loolu mooy njariñam tey loolu mooy njariñam ëllëg te ñu moytu nag yi nga xam ne mooy xew léeg-léeg ci mbooloo yi muy ay xëccoo walla yu ko nuru ndax mbooloom jullit kat dañoo war a maytu tanaaso ndax alquran ci boppam dafay wax ni wala tanaazau wala tanaazau fa tafsalu wa tazhabu riixukum xëccoo moom ku ne xam na ni mbooloom jullit mu deñut di ko def fa ñuy mujj mooy dañuy échec la ñu bëgg duñu ko am la ñuy yóotu itam duñu ko jot kon yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk ànd ak xëccoo leneen loo xam ne itam nag lu yitteeloon sëriñ bi la muy wàllu dimbalante ndax xam ngeen ni noonu ma waxee ni mu tuddee mbooloo yi muy jam iyatu taawun waaye dimbalante bi ci lan ala taatillahi wa rasulihi dimbalante ci topp ndigali borom bi subhanahu wa taala ak di topp ndigalal sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lañu ñu xoolloo moo tax sëriñ bi ci boppam di wax ni wa man takun bi rasulillahi muqtadiyan fi diinihi fa huwa maghrurun yaran niqama nee na képp koo xam ne yaa ngay jëf te la ngay jëf dëppale woo ko ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi bëgge sëriñ bi nee na kooku maxruur la ku waru te bu ëllëgee dana gis ay mbugal ak ay jafe-jafe loolu lépp rek di wane ni kon ki nga xam ne moom lañ royloo muy yonent bi sallallahu alayhi te alquran wax ni wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu waaye nag wa ma nahaakum anhu fantahu moom la sëriñ bi wax ne lépp loo xam ne nit a koy def te defewu ko ci ni ko yonent bi salaa salaam doon defee jëf jooju dey jëf la junjul nangu kon loolu ñun ñëpp war nañ cee góorgóorlu te bàyyi ko xel bu baax a baax nekk loo xam ne damay wax ni daanaka mooy liggéey bi solidarité boobu sëriñ bi da ko fonkoon ndax bu ngeen xoolee sax ñi nga xam ne duñu ay jullit ci wàllu woowu taxawal nañ ci lu mel ne ay Caritas ak yeneen yu ko nuru te loolu lépp dañ ko def ci wàllu solidarité te loolu ñuy def yaakaar naa ni waruñu koo dàq jullit ñi kon war nañoo jàngataat mbir yi bu baax a baax xam li nga xam ne walla yoon wi nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon ñu teg fa sunu tànk ñu jéem caa góor góorlu sunu kemtalaay kàttan te xam ne wàllu solidarité boobu tey ñi nga xam ne duñu ay jullit dem nañ ba taxawal ci ba def ci ay résultats yoo xam ne ku xool dañ ciy gis mën nañoo wax nax sax ci wàllu solidarité boobu tey dem nañ sax ba mu jaral leen ñuy récupérer ñoo xam ne ay jullit lañ doon mbubboo ba dugal leen ci wal iyaasu ci leneen kon yaakaar naa loolu borom xam-xam yi ñu toogal muy oustaz Mouhamad Ndong ak Serigne Fallou Dia ñoom bu ñu dikkee incha allahu daañu ko gën a leeral bu baax a baax kon dañu leen doon ubbil rek waaye borom xam-xam yi nga xam ne ànd nañu ak sëriñ bi. te oustaz Ndong mii di kenn ci ñoom dana ñëw leeral loolu ci anam goo xam ne anam gu leer naññ la ba képp koo xam ne bàyyi koo nga fi da mën a jàpp bind boo xam ne ëllëg incha allahu boo ko jëfandikoo dana la jariñ kon ñu ngi sant bu baax a baax bokk yi di leen gërëm tam ci seen taxawaay di ñaanal tam sunu gan gi nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ Maam sunu boroom dëgëral ko bu baax ba mottali li nga xam ne mooy yéeneem xam naa rek ci njeexital li di fàttaliwaat bokk yi ne loo xam ne lu ñoroon sëriñ Murtada la te saa bu ñu ñëwee ci jotaay yi di ko war di fàttali muy nag dawaa ir yi walla association yi di bàyyi xel bu baax baax sunu njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te njaboot yooyu am ci ñoo xam ne dañoo toll ci ñu war leen a xamal seen diine ba bu ëllëgee naal yi nga xam ne walla sémb yi nga xam ne mag ñi sémb nañu ko fii te naal ko fi bu ëllëgee xale yi bu ñu ñëwee mën koo saytu te teg lépp ci yoon te loolu kat mënuñu koo am ndare dañoo jaar ci yoon wi nga xam ne sëriñ Murtada moom lañu ñu digaloon muy ñuy jàngal njaboot yi moo xam njaboot yu góor yi la moo xam njaboot yu jigéen yi la ñu di leen jàngal ba ñu xàmmee ba xam seen diine ba dara du leen mën a fëkk loolu nag doon na liggéey boo xam ne daayira yi damay jàpp ni ni ñu fonkee joxe addiya yi wala joxe àllarba yi nu ko raw nag lañu ñu war a fonkee taxawaay yooyu muy fexe xamal ndaw yi na njaboot gi kon du ñàkk ci mbooloo mi ñoo xam ne xëj na bi ñuy bàyyi koo Sénégal waajal nañ leen ci wàllu diine ba ñu xam lañu ñu war a xam kon donte semaine bu ne walla weer wu ne ñu daje ca barab ba ñuy daje di nafaraat ñi nga xam ne war nañoo nafar ak ñi nga xam ne seen àlluwa desoon na ñu mottali ko fa loolu bokk na ci liggéey bi nga xamante ni bu ñoroon sëriñ Murtada la sëriñ Mamor itam ku ne gis na taxawaay yi nga xam ne moom la ciy taxaw kon loolu nañ ci góor góorlu bu baax a baax kon ñoo ngi sant bokk yi di leen gërëm di ñaan sunu kilifa gi nga xam ne moom lañ koy àndal muy sëriñ Mamor sunu boroom dëgëral ko in uridu illa al islaaha wa ma tawfiqi illa billah wa salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, sëñ oustaz jërëjëf yal na yàlla yokku fan wi te wéral cër yi te dëgëral taxawaay bi te liggéey bi ngay liggéey Serigne Touba yàlla na nga ci am ndam ci barkeb Serigne Touba kon ñu ngi lay sand bu baax di la gërëm di xam ne cant gi ak ngërëm li moom lott nañ ci waaye nag dañuy lay bàyyi ak ki nga xam ne nii moo la moom ngay liggéeyal muy Serigne Touba mu fayal ñu la lu kawee sa yaakaar kon jërëjëf euh, li ci des mooy bokki taalibe yi kon ñi ngi sàkku ci mbooloo mi ci taalibe yi ñi àgg suuf te jege si ndax ku baax ki mi ngi bëgg a ñëw te ku ne xam na ne bu xasee ba agsi dañuy daal di jublu ci yëgle yi suñu yëglee ba noppi itam daal dugg ci ziar bi waaye ba tey itam ñi bàyyi xel ci ne mbooloo mii fi teew te kenn rek tax leen fee teew muy Serigne tubaa na leen wóor ne Serigne Touba mi ngeen yaakaar. ak fu ko waay mën a yaakaare ba ñëw ne la wóor ne yaakaar jooju mi ngi fi yàlla nañu ci yàlla jotale nag ba ñu jotti te bu ñu jotee yàlla nañ ko jariñoo di leen xamal ne nii rek la ndax li gën a am solo ci àdduna mooy nit day am lu ko ñor te nit lu ko ñor nga xam ko ci moom mooy dañuy wax ne lu ne mën naa am waaye tànk fu mu dem rek ñor na ko tànk moom du fenn kon woote bii nga xam ne nii jëwriñ yi woote nañ ko ngir yàlla ak liggéey bi nga xam ne nii moom la sëriñ Mamor di dox muy liggéeyu sëriñ Tuubaa bi ñu woo leen ci ngeen wuy si ci ñu ngi ñaan yàlla yàlla ngeen ci daje ngërëmul sëriñ Tuubaa kenn ku nekk ci yéen ku fi teew ak ñi bëggoon ñëw te ñëwuñu te am gàllankoor layoon seen yéene mooy bokk ci mbooloo mi tey yéene joojee yàlla du ko delloo ginnaaw yàlla dana ko nangu kon ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba daje bi yàlla nañ ko yàgg di daje te saa bu nu ko dajee kenn ku nekk ñun la nga cay sàkku yàlla may la ko ba may la lu kawe sa yaakaar kon nañ defarwaat bu baax rek te néggandiku tuuti dootu yàgg dara sëriñ bi ñëw su ñëwee ñi ziyaar ko bu ñu ko ziyaaree ba noppi nag mu ñaanal ñu dénk ñu ñu delluwaat ci yitte ya kon li ci des kenn ku nekk ci yéen ndigal loo xam ne ci jëwriñu la bàyyi ko mooy dañoo wax ne ba tey rek du doy ndax lu baax du doy kenn ku nekk ndax bis bii ku ne xam na ne ay weer a ngi nii ñu koy waajal ba yàlla dogal tey ñu agsi bis bii nga xam ne nii ci la ñu war a siyaare Serigne Mamor mu am loo xam ne nag. dañ ko doon laaj muy addiya doon ko laaj daayira yi ak bokki taalibe yi daayira boo xam ne ñëw nga fi te indaale sa addiya wala ngay fédération wala ngay jëmmi wala ngay kenn yor addiya ba koo joxe soo demee ca bunt ba am na ñu fa yor taabal loola rek moo leen fa bàyyi soo leen joxee addiya ji daañ ko bind daañ bind itam fa nga bàyyi ko kon loolu lañ waxoon ne nañ leen ko fàttali te ñi nga xam ne itam ñooy wàllu sécurité bi muy ñu yore zile yi li ñu leen di dénk mooy na ngeen góorgóorlu te amuk dal te am yar ami teggin ndax ñi fi nekk ñëpp bëgg a gis sëriñ bi nuyu ko rek moo leen fi bàyyi kon yéen ñi nga xam ne nii yéenay organiser siyaar bi ñu ngi leen di ñaan yéen seen jëmmi bopp dal gi na ko tàmbalee seen bopp bu kenn ba max nit bu kenn merloo nit ndax kenn ku ne sa yit te dong moo la fi indi te sëñ Maam moo tam li ko fi bàyyi di ko fi indi mooy balaa jóge ci salle bi ñëpp daañ ko ziyaare képp ku am aajo jum mën a doon ak yitte lum mën a doon boo ko fasee ci jataay bii nga xam ne yaa ngi koy jataay ci salle bi yàlla mën na koo saafara sëñ Tuubaa mën na koo saafara ndax lu baax képp moo leen tax a jóge seen i kër moom ngeen fi te am na fi nag ndax lu baax soo koy wut te fa nga koy wut mu am fa na nga dalal sam xel te rafetal sa njor te xam ne da nga ko am kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di sàkku ci tuut tànk yi ñu ngi koy sàkku ci tout tànk yi ñu yëkkati ñu xasida balaa sëriñ bee ñëw kon ñu jox sëñ Pape Bass Fall euh, mu yëkkatil ñu xasida balaa sëriñ bee ñëw xasida yooyu itam ngeen xam ne ñii nga xam ne ñoom la yàlla baaxee ñu ne fi di ay kuréel nekk ci réew mi di ko yëkkati di ko jàng te Serigne Touba rek tax suñuy doom lañ ak suñuy jarbaat ak suñuy rakk kon nañ leen bàyyi xel te di leen déglu te lépp lu ci waay man ci di leen jàppale ci xelal leen ak digal leen ñi di ko def ndax ay gone lañ te ku ne xam na ne gone moom faaw dees koo war di digal ak a tere kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasuul daje bi yàlla bu mu doon suñ mujj daje yàlla nañ ko dajewaat ay ati ati te at mu nekk saa bu ñu koy dajee muy ngërëm ci ñun di lu baax ci ñun di loo xam ne itam lañ doon sàkku ci Serigne Touba Serigne Touba mayal nañu ko boppam kon wasalaamualeykum wa rahmatullah ba ci kanam. rabbi ya ahmadu ala muhammadi xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi watanala